asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu sifri ci Equivox TV maa tey nag ñu ngi jeudi 11 novembre 2021 la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglekaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 11 novembre 2021 dañu ñëw ak ci yëglekaay sunu lamb la nii xëy dooreete ko yëglekaay bi tey mu njëkk. la xëy gën caa fes bokk na ci ka nga xam ne nii moom moo di Boy Niang la càppaacoli comme nan koy woowe ci biir làmb ji daal mu mel ni ki nag digganteem ak tafaatin la yëglikaay bi ñëw jàpp ne daal maanaam moom Boy Niang mooy premier VIP bi nga xam ne mooy jëkk a wàcc ren ci géew bi bokk pikin maanaam ci VIP pikin ya yëglikaay bi nag ne moo tax maam nag moom Boy Niang fi mu nekk nii la ko war moo di ndam ci digganteem ak ka nga xam ne moom moo di tafaatin borom taq ci rib yëglikaay moo xëy ñëw moom sunu làmb dinu ko wax ñeneen ñoo xam ne ay doomi Pikine lan di ay mbër yu mag bokk na ci bàcc seeraas yëglikaay bi ne nag soo bëggee dégg dëgg moom tamit fi mu nekk nii gëjës na koo gis ci làmb ji mu wàcc bëre waaye terewul nag ñu ngi koy proposé ay adversaire bokk na ci Mbay Juuf ma ñu xam sa Bawal ak itam Tafa Gueye numéro 2 l' espagnol maanaam Tarobe xaa ñaar ñii daal ñu ngi koy proposé bàcc moom mooy xool ku mu cay choisir jël ko bëre ak moom keneen koo xam ne tamit Pikine lan ko xamee muy Jordan moom itam xëy na samp am ndëndëm ñam ko sampal nag bokk na ci ka nga xam ne ni moom moo def franc mu parcelle ak Gris 2 rakk Gris Bordeaux daal ñaar ñii moom Jordan ne na fu mu mën a jaar laale ak ñoom moo ko gënal lu mu am yëglikaay baa xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu bu nu continuer ba tey ci yow yëglikaay ba mu nga xam ne moom moo di sunu lamb mu nga xëy tey di nu wax ci combat fii nu jëm jàppal yëglikaay ba ne na bu bëggee dégg dëgg daal le 14 novembre diggante Jackson bu Géejawaay ak Naaru Sogas Aliou Ba di ab entraîneur di xam-xamam màcc ci wàllum làmb daal la mu xëy xamle ban ko laajee favori bi daal jàpp na ne Jackson Junior daal 60 pour cent am na ko maanaam daal moom mooy favori 60 pour cent yëglikaay bi moo xëy tey seq ak moom waxtaan mu wax lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne tamit fas dañu yéene jàkkaarloo balaa ñoo bëree maanaam fas à face muy diggante Pape Ndoye Racky Lagros ak Abou Niasse bras droit si taba yëglikaay ba nag nee na tey ci alxames ci daal maanaam bu bu ñeenti waxtu jotee arène nationale la ñuy def ab jàkkaarloo ka jaar nag moom mooy jamayke boroom jam production yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne amoon na fi fan yi nu génn muy tournoi wu CEDEAO ba yëglikaay ba nag dikkaat na ci ginnaaw ba ko Sénégal gagné ak réew yo nga xam ne moom la ko seqalaloon doon ko jongante ak ñoom yëglikaay ba xëy na tey di nu xamale daal ne na Moussa Faye mooy le meilleur de yëglikaay ba moo xëy tey ñëw tudde ko ko maanaam ca 65 kilos ya ka ca topp moom moo di gànja faama gànja nag yëglikaay ba révélation la ko jàppe koo xam ne daal biddiw bu bees la bu fekk boo xam ne sénégalais yi xamuñu woon ko waaye léegi nag découvrir nañu ka nga xam ne moom moo di gànja faama doomi bitanti ba keneen koo xam ne nii moom maanaam déception la yëglikaay ya woon ma loola boog moom la waa lamb jële ci moom wala waa CEDEAO wala waa Sénégal te na mu compétir moom moo di booy fay yëglikaay ba noonu waa axlu làmb moom am na ñoo xam ne prime nañ leen jox leen ay prime daal maanaam axlu làmb Sénégal daal ñoo def lu mel ni kii noonu mu ñetteelu édition ba ñu koy def bokk na ci ka nga xam ne nag moom moo di Doudou Sané ma nga xam ne mooy doomi joof yor ngañ seen ma nga xam ne tamit ci làmb ji la ne ak Toubacouta ñett ñi daal la ñu tànn jox leen ay prime mel ni ki ay xale lañ yoo xam ne daal ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax a baax ci la nga xam ne nii moom moo di làmb ji waaye loo xam ne daal jar naa bàyyi xel mooy diggante Jackson ak naaru sogas dimanche ji nu jëm bu buñ ca jógee jamay kee dikkati diggante Pape Ndoy ak ka nga xam ne nii moo di Abu Ñaase mu mel ni kon daal fi mu nekk ni moom lamb ji day continuer di jax ba weeru janvier maanaam diggante guy gi ak ka nga xam ne ñoom ñoo di rëg-rëg loolu la deux janvier lay am waaye bala ñu caa yegg daal boo bëggee dégg-dëgg moom diggante novembre ba décembre ba janvier jàppal cin lu bax cin luy bax lay doon ruq ba sedd moom doo ko fa mas a gis ci biir làmb ji lay amee bëre daan ñibbi wala ñu daan la nga ñibbi. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen ko tey yëglikaay sunu làmb tey loolu la xëy tey indil ñu ko muy ay xibaaru làmba waaw ñuy nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen ak foo leen mën a nekk si àddina bi rek waaw ñu ngi leen di bégge bu baax a baax a baax a baax euh, comme ni ngeen ko xamee nag comme li may wax rek balaa may sori bon par rapport ak tey euh, defe naa ne Euh, comme ni ñu ko waxee woon démb fii ci côté politique beeg yu mel ni kii noonu du ñu tàyyi di ko wax parce que tamit ay sénégalais lañ te dañu fier ci nekk ay sénégalais ndax réew mi ñu nekk yaakaar naa ne nekk sénégalais moom yombul waaw kon nag yaakaar naa ne li fi nekk ci jàmm ba mu bañ juddoo ba tey nekk fi ci teraanga ak ci xéewal ak ci wegante ak ci sutura nañ ko fexe sàmm liñ koy sàmmloo nag mooy maanaam ñu xam loolu. parce que mbir diñ ko am te doo ko xam léegi nag yow boo dof dof la ba ñàkk ko ngay doog a xam ne li nga ngay doog a xam ne yow li nga ñàkk ndekete yoo yombul woon a am kon li nu am ñun Sénégal nan ko sàmm bu ñu topp kenn maa ngi koy wax encore une fois di ko waxaat te du ma dañ ci di ko wax ku mu mën a doon laa wax moo xam a politicien ku mu mën a doon bu ñu ko nangu di topp ci lenn lu nga xam ne daf ñuy tax ñun ñuy ñàkk sunu ay bakkan te ñoom ñuy continuer di dund seen dund moo xam politicien ba sa pouvoir ba la moo xam politicien ba sa opposition ba amu ci kenn ku ko ci jar yaa ngi dégg bu fekkente ne ñoom defar réew mi kese moo leen ñor moo xam ñi yore réew mi la wala ñu koy laaj la defe naa ne war nañ ñoo mën a woo ci feneen fudul ci kaay leen ñu xeex kaay leen dóorante loolu moom bu nu ko nangul kii que ce soit encore une fois te du ma dañ di ko wax man Babacar laa wax parce que tey amul kenn koo xam ne nii bu voté jotee doo dem voté ji parce que man citoyen damay voté am naa fu ma far waaye ka ma faral tey ci wàllum élection dama koy wax parce que ragaluma di ko wax parce que yàlla dogal na am naa fu ma dëkk muy ca commune Ndondol ca Bawal ca ak yaay ka ma fa àndal muy met Pape Sène ah xalaatul mukk tey ne ma dalal ci kaw Edouard wala beneen candidat bu fa ne di xëccoo ak moom commune ba déedéet parce que ñooñu ak ñoo ma dëkk ñoo bokk commune bi ñun ñëpp ñoo dëkk kon jàmm la ñuy seq terewul nag ñu ñàkk bokk gis-gis ku ne am loo choisir comme am ko xalaat ne moom war na mën a yor commune bi waaye loolu est-ce que war na tax ñuy jàmmaarloo di sànnante ay xeer wala ñuy waxante wax bu ñaaw yaa ngi dégg kon encore une fois mbay ci sa wew tànk sama dëkk laa koy njëkkee commune ay candidat pour élection locale yi waaye ñun fa dëkk ñëpp doomu commune bi ak kum ci mën a doon bu la kenn jaral ci àddina ngay wax sa morom wax bu ñaaw wala nga di ko ko def ëllëg affaire ba passé du ngeen mën a xoolante nañu dem xëccoo ji bu élection jotee ça veut dire que mooy ñu xëccoo si jàmm ku battre campagne jotee ku ne dem battre sa campagne su voté jotee ku ne dem votel ka nga choisir ku gañee ñu félicité la ña ñu gagné encouragé leen ña gagné gouverner ñu bokk suñu commune mu dem te Sénégal gépp defe naa ne noonu la mbir yi war a doxe waaw kon loolu moom dañ ko ci doon sànniwaat rek pour mu leer yaa ngi dégg euh, bu ma ñëwee nag tey ci yëglikaay yi gis ngeen sunu làmb doon xëtam mu njëkk ci gën a fës moom mooy la càppaaculi Boy Niang comme nuñ koy woowee ci làmb ji ah le fils de De moo ci nekk tey yëglikaay bi nag li mu xëy laaj ne na Boy Niang mooy premier VIP bi nga xam ne nii mooy ubbi baal bi ca Pikine mooy njëkk a wàcc ci géew bi bëree ren ci VIP Pikine yi parce que mooy njëkk a wàcc euh, Ama mooy njëkk a wàcc Eumeu kon nag moo tax yëglikaay bi ne moom est-ce que ah condamné mu ko maanaam nekkul ku nga xam ne nii daal kon comme ndam euh, condamné nañ ko pour victoire waaw pour mu war a euh, battre Tapha waaw loolu moom defe naa ne booy Niang ma jël combat euh, depuis daaw ba ren xam naa fi mu nekk nii moom la ne ci xelam mooy tey bu ñëwee ñëw ba neex ndax itam ku ne xam na ne mbër bu jëlee sa avance am na ci ay argument yu ko teg te Boy Niang damay wax ne mbër mu jar bàyyi xel la parce que li tax mooy mbër la mi nga xam ne sportif la. benn intelligence sportive am na ko waaw te bis lu mu laaj xam na lam ci war a def kon te te li ko encadré yàggul ci làmmee gis nga tey niveau bi muy bëree ça veut dire que loolu encadrement koy maye ak yow mi nekk athlète bi ñuy encadré tamit nga neex a encadré am entourage bi nga déggal leen bàyyee leen sa bopp loolu bokk na ci li ko indi niveau bi mu nekk kon defe naa daal combat bu neex la ñu jëm comme nag mooy ubbil baal bi waa Pikine comme VIP ñu yónni yàgg bu le 19 décembre soreetul ñu ñaan yàlla rek egg ci ak jàmm ñu bëri ko mag tafaatin que le meilleur gagne waaye tamit ñuy wax promoteur bi ko na ko yeggaleeg jàmm parce que tamit vraiment combat bi yàgg na lool mais nag wolof ne na bu yoon jeexul waxu su lu jeex keneen koo xam ne wala ñenn ñoo xam ne pikin lañ dëkk kenn ki mooy Bathie Seras ka ci des moom mooy Jordan Bathie Seras euh, yëglikaay bi mu ngi nu xëy di nu xamal ne bàcc daal ñu ngi koy proposé ay adversaire ñaar muy mbay Diouf bu Bawal mosu ñoo bëre ñoom ñaar ak ki nga xam ne moom mooy Tafa de mos nañoo bëre ñoom ñaar ca Demba Diop combat bu neexoon mu mel ni ñaar ñooñu nag ko ci bàcc am day valable pour moom pour mu bari ak yow parce que bàcc tam wax dëgg yàlla defe naa ne tey bëri na xale yu mu inspiré ci làmb bàcc seras rawatina Pekin googu ndax booy Niang mi ñu doon tudd léegi wax na fi bu yàggul ne bàcc bu bëri wan daan ñun daan bam daan bokki ci xale yi dem këram di ko feete parce que jamono yi muy am na moment boo xam ne ni boobu Pekin wax dëgg yàlla bàcc mën nañ dëkku te ci loxom te incarné ful bu doy waar bàcc dem ba xajatul ibamaar ñu génne ko fa indi ko démb mu di ko duy façon duy boo xam ne nii mooy loolu kon defe naa tey bu yegsee fii muy koo xam ne tamit vraiment nit ku baax la euh, yaakaar naa ne kon digganteem ak Tafa Gueye 2 revanche day neex digganteem ak Mbaye Diouf tamit combat bu bees day neex ñu xool ka ca des beneen doomu Pikine nekk igri xam sa cosaan muy Jordan moom tamit yëglikaay bi xëy na tey di ñu xam ne daal moom moom Jordan sax moom moo wax ne ne kii di Gris 2 ak euh, ak Franc daal ne moom Jordan ne nañ ñëw mu may leen sens waaw loolu daan la ko gisee waaw moom maychance la ko tuddee waaye nag dafa naan da bu dee da nga leen di maychance tamit fekk nañ la ci kaw de loo ci mën a dégg Gris de doo moom mu ngay wax ak Franc mu ngay wax fekk nañ la ci kaw Jordan ndax boo xoolee euh, sa combat yu mujj a ah, ay contre performance la yaa ngi dégg ñoom nag seen combat yu mujj dañ ci jële ay ndam ndax Gris bu yàggul daan na Abdou Diouf Franc bu yàggul daan na Tyson 2 kon defe naa tey est-ce que lamb boolewul ak ñoom loolu laa foog donte que nag yaa leen jiitu ci làmb lool moom am na man nga parce que nag yaa leen jiitu ci yaay yaay seen mag ci làmb waaye yaa ak ñoom daal koo ci am ci ñaar ñooñu combat bu neex day am leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy diggante Jackson ak ki nga xam ne ni moom mooy papandoo Ndoye euh, wala boog diggante Jackson ak Naaru Sogas ki xëy tey ñu laaj ko ci mu ciy wax moom moo di euh, Aliou Ba di magu bàcc Seras mi ñu doon tudd léegi di entraîneur Aliou nag nee na Jackson moo moo am 60 pour cent Euh, ci combat bi maanaam moom mooy favori wu combat bi waaw boo xoolee ñoom ñaar boo leen comparé actuellement fi ñu taxawee taxaw seen taxawaay ci làmb loolu mën na ne waaye nag nañu sóoraale expérience u naaru sogaas parce que kenn gisu ko bopp ba tey kenn xamul ci lu mu ne waaye dégg te combat bi ba ko jiy taxawale ak léegi yàgg na xam naa suba sax bu soobee suñu borom dana leen defal plateau spécial ànd ko promoteur bi jiy seen ak Fadam tout suñu consultant bu nga xam ne kenn du moom ci làmb leneen loo xam tamit day am tey incha allahu rabbi ngeen gis ñaari mbëri noonu muy Pape Ndoye bu Fass ak Lagros Euh, ah, dégg nga ma ne Pape Ndoye ak Lac Rose sax waaye Pape Ndoye daal ak Abu Ñaase bu Lansar boog di moins tey seen jàkkaarloo face à face Cheikh Super Jamono ak Mame Mor Doomu Fass tey lay looluy am fa nga xam ne moom mooy ca arène nationale jamaïcain moom moo def loolu muy yoo xam ne tamit ah macha allah dina neex lool ndax ñooñu moom ku leen dajale dana neex kon jamaïcain itam ñu koy ñaanal journée le 21 novembre bi yàlla na ci génn ak jàmm leneen loo xam ne dañ cay ñëw loolu nag ci wàllu làmb simple la jëm tournoi Serie bi ah neuvième édition yëglikaay bi ñëw na ci tey dina xam ne daal ci tournoi bi moom ah gis ngeen noonu Moussa Faye gis Ganja Fama gis Boy Faye yëglikaay bi nag nee na bu bëggee dégg-dëgg tournoi bi Moussa Faye mooy le meilleur Ganja Fama moom mooy révélation bi waaye Boy Faye moom mooy déception bi wax noonu la ko sunu làmb tey topp noonu la ko gëstoo andi leen ko noonu muy tournoi boo xam ne daal Sénégal moom gagné na ko waaye nag boo gisee mu wax loolu parce que Moussa Faye moom comme li ma waxoon démb rek depuis Cheikh Ndiaye jógee ci 66 kilos bi tey moo fa nekk. yore place bi di ko doxal normal te vraiment saa yu ñëwee moom day def différence gànja nag ren lay doog a bokk yaakaar naa ne waaye vraiment waxuma sax révélation mais sénégalais ci boppam dèjà ñoo bëgg gànja faam parce que gànja bër bu saf xorom la macha allah day yëngu di yëngal te su bëree day neex kon loolu tamit am na solo booy fay tamit ñàkk na am na fu mu ñàkkee ci biir tournoi bi mais loolu tamit mooy sport ah, parce que tamit euh, ñi ñu doon dajeel suñu ay nawle la ñu waaw ay nawla lañu te ay Niger Nigeria ay mbër lañ yoo xam ne dañoo mën a bëri xam nga yàgg nañoo solo Sénégal yàgg nañu indil ay jafe-jafe donte dañ leen di gagné lu bari lu ëpp ñoo leen koy gañe waaye nag bon loolu mooy sport ñoom ñëpp buñ sañoon dañuy am 100 pour mais nag tamit comme da nga seex ak say nawle nag ah da nga leen xam ne nag ñoom li nga bëgg lañ bëgg rek la olof naan bi bëgg la bar bi bëgg leneen loo xam ne tey axlu làmb Sénégal ñoo koy def muy troisième édition ay mbër yoo xam ne dañ leen di primé muy Doudou Sané ñoom la ñu moom la ñu primé ngañ seen ak Toubacouta loolu jaadul defe naa ñooñ tamit ci li simple mi ngi ciy wane seen bopp bu baax a baax a baax ndax ngañ seen bi sax amoon na présélection équipe nationale bi doon bëre CEDEAO bi mais malheureusement mujjuñu ko boole ci cinq majeurs yi mais terewul ba tey ay sens a nga fa ndax xale la boo xam ne daaw laa ko découvrir man ca tournoi Fallou Ndiaye ba ca Gambie mu wane fa boppam boobu ba tey mu ngi am taxawaay bu am solo ci li simple Toubacouta kenn du ko présenté kenn ndax taxawaay bu am solo bi mu amee ci làmb waaye Doudou Sané moom waxaale ko ndax moom euh, c'est le meilleur comme ni ñu ko waxee ren ci wàllum simple bi muy xale boo xam ne tamit doomu jof yor boobu bërki déb rek beneen lit avec frappe moo ko rhinocéros gagné ko par ay ay kon loolu moo fi dikkoon tey ci yëglikaay yi di leen dox di leen jox di daje suba incha allah rabbi mais di balu ñëpp di bal ñëpp ak di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na yàlla tàppe xol yi comme ni ko maam da baax doon waxe te itam yàlla musul ñu ci saytaane yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla musal tamit ci fitna lépp loo xam ne daal mooy tax sunum réew stable ne ci jàmm yàlla nañ ko yàlla dimbali wan ñu may nu ay xol ak i xel yuy tax ñuy sax ci loolu parce que nag jàmm gën lu dul jàmm te nu ma koy faral di waxee rek nja euh, borom njaboot jàmm kese moo ko jig kon yàlla nañ yàlla defal jàmm di bëggee ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, di wax que ni Mansour moo ne woon si caméra bi ci kàddu gi Babacar montage bi hélas la di ñaan jàmm lan na ko yàlla def Sénégal